wajal kalaami rasidan wa mursidan wa fikrati nawir wa xalbi arsida mbokk yi ni bàyyi fun mën a nekk ci àdduna bi moo xam ñu nekk ci réew mi wala ñu nekk biti réew tey bàyyi xel seen seen bu am solo bii mooy le grand secret wolof ñu ngi leen di waxati asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi ginnaaw bi ñu santatee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi jaajëfal mboolem mbokk yi ne bàyyi xel ak fu mën ne mbokk yi tey dañu fas yéene ànd ak yéen ci benn secret bo am solo di secret boo xam ne ginnaaw mbokk yu bari dañu koy faral di laaj moo taxoon tey ñu fas yéene leen ka indi indil leen ci ay leeral yu am solo muy secret bi ñuy wax fay wax fay wax nag boo ko diggee mooy. koo xam ne dafa nekk ci jafe-jafe ay coow yu bari mu bëgg coow yooyu ñëpp bàyyeendoo coow li mu bëgg ñu defar ko ko secret bi loolu mooy li ko tax a jóg mooy dugg ci guuta wala nga am ay problème yoo xam ne ba nga nit ñi fàtte ko force secret bi loolu mooy li ko tax a jóg muy bu yéeme yéeme nag bala ñu ciy gën a sori dañ lay wax yow mi gën ci paas bi bu fekkee ne abonné goo ci seen bi. ñu ngi lay wax nga abonné ta sem vidéo bi partage ko mu gëna yaatu ndax mboolem vidéo yi ni dugal yëpp ay vidéo yi njëriñ la ta njëriñ nak num gëna yaato rek ci la gën di wax yow mi nga xamné da nga bëgg def lu seet wala nga bëgg def lu xaar dañuy def seet à distance dañuy def tamit xaar à distance mo xam nga nek ci rew mi wala nga nek biti rew te bëgg kula defal ben ci ñaar yi man nga jokk ak ñun ci benn ci ñaari numéro yi muy 77 684 28 28 77 684 28 28 numéro bi whatsapp la mbokk yi nga xam ne dañuy faral di yitoo garabi kàttan yi muy garabi musxam yi ñu ngi leen di xamal ne garab yi disponible laat na jamono ji ñuy wax ak yéen képp ku si itte woo moo xam nga nekk ci réew mi wala nga nekk bitim réew man nga jokkoo ñun ci numéro bii muy 77 684 28 28 foo man di nekk ci àdduna bi moo xam nga nekk ci réew mi wala nga nekk bitim réew incha allah rabbi di ci jot ci dem gën a gaawe mbokk yi dañuy def ab fàttali bu gàtt rek ci njariñ yi nga xam ne garab gii di mos xam lamboo na ko ndax dafay garab gu bari njariñ lool dafa yemut ci walu kattan kese waaye nag dañuy wax tuuti ci njariñ yi mu mbokk yi garab gii di mus xam day garab goo xam ne dafay yokk maniyu bu baax a baax a baax maniyu mbokk yi garab gii di mus xam garab la goo xam ne dafay dundal wallax njaan mbokk yi garab gii di mus xam garab la goo xam ne dafay joxe kattan gu yéeme yéeme ak yeneen njariñ yoo xam ak yeneen njëriñ yoo xam ne garab gii di mus xam lamboo na ko kon mbokk xanaa dañuy dikk ak yéen ci secret bi nga xam ne moom lañ fa see ànd ak yéen tey muy secret fay wax di secret bu yéeme boo xam ne def nañ ko lu benn du ñaar am ci ay résultats yu yéeme lool. motax mbok yu bari bi ñu bi ñu koy laaj ñu ne nañ leen koy indil muy al yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun mom boko xole bari na ay mim bépp mim bo xamne mi ngi ci biir dang kay yaatal kom ni nga ko gisee nii boo ko mim yëpp nga jël turu ñi nga xam ne ñoo seq coow yi yëpp nga def ko ci biir xëy na secret bi bari na nit ñoo xam ne am nañ ko waaye am na ñoo xam ne amuñu ko waaye nag li may faral di wax toujours rek ne lii di yuuti moom am pénc la pénc nag nit ku nekk dafee nekk am na nit ñoo xam ne yeyoo nañ am ko waaye am na nit ñoo xam ne buñ ko amee rek tojub dëkk